Serigne tubaa c'est le libérateur di monde noir l'envoyé de Dieu pour le monde noir flambeau de l'islam maître incontesté des hommes de Dieu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul Serigne Touba bu fekkoonte ne du moom tey Sénégal fii jàkka yi du fi bari julli gi du fi am bu pexee France juboon saa Serigne Touba bu toon Serigne Touba tey doo jublu penk keneen du ko jublu wala des koy seetaat waaw xeexam bépp nag mu teg ko ci libéré der bu ñuul ak libéré diine l'islam bi mbokk ak xam loo nit ki mooy boppam parce que dangaa ñuul wala damaa xees wërtatee ma xam sama bopp xam li ma doon da ko wax ci Masaalikul Jinaan loolu nag mooy bee ba faw ay la yàlla yéwén ju duñ moom mukk mukk nit ku weex dañu teg tànk déedéet loolu moom duñ ko nangu moom ñuy dund ñuy dee ñuy ree ñuy jànkante duñ nangu mukk nit ku weex dañu ngalaab dañu tegi tànk déedéet léegi nag àdduna bi àgg na foo xam ne dof amatut ku xamut amatut il temps nag boo yaree sa doom ba mu am 18 ans ba takk jabar samp kër yor soxna il est nag nga bàyyi ko nag mu dem ay responsabilités boppam il est jot na mën nañoo demal suñ bopp romb nañ fu ñu nit ku weex di jàngale dara dara dara dëgg nag coopération yi mën na fay des ak rafetal gi ak yooyu yëpp coopération militaire ak tout